fas yéene seq ak yow euh, jotaay bien vrai que sa temps barewul mais quand euh, defal nga ñu euh, linimel ngir rek ñu waxtaan ci actualité bi ñu ngi leen nuyu bu baax. di nuyu équipe technique bi yëpp. di nuyu ñi ma àndal. di nuyu Sénégal yi di leen baalu ak di leen baal ak. Mhm. et c'est toujours un plaisir d'être en face de toi. Mhm. muy noonu sànq déglu nga wala bokk du ñàkk jot nga ci information bi nga xam ne mi Dias sànq mu ngi génn di gis ne dafa mel ni dañu ko tënk. du mën a def caravane am ci fi nga xam fa la ko bëggoon def parce que Ousmane Sonko moo war a def caravane euh, côté Grand Yoff mu jàpp ne loolu c'est injuste nooy jàngatee loolu docteur. Ousmane Sonko bàyyam la nag. mais bu dee ci réew droit la ñu nekk. war ma ne ci réew droit la ñu nekk. Ousmane Sonko en dehors d'être le candidat c'est le chef du gouvernement Ousmane Sonko c'est une institution de la République. L'État doit veiller à sa sécurité. à sa protection. Keroog, vous vous rappelez, il y a Malik a été agressé. Mm. Ça aurait été Ousmane à la place. Le bras cassé d'un premier ministre, chef de gouvernement. Point d'interrogation. Hmm? hmm? Vous me direz, et le monde entier dirait que le Sénégal est en étape faible. Léegi vous voulez qu'à cause xaju balcon que le monde entier dénigre les forces armées sénégalaises ou la justice sénégalaise à cause d'un xaju balcon et ce xaju balcon là il est qui il est quoi le maire de Dakar il est maire de Dakar en raison de quoi et à cause de qui nul n'était ce Sonko là qui a pointé du doigt faites de lui un maire il ne serait jamais maire Jamais. Lui-même, il le Et ce Khadj Balcon qui joue les impolis là, il est plus impoli que, que qui Parce qu'il n'est pas sénégalais d'origine. ana ay maamam dégg naa baayam di naan mel ni sa maam nous nos maam là suñu grands-parents yi on les connaît guerriers on les connaît dans les conquêtes et résistances au Sénégal ses maam ses grands-parents n'en figurent pas même son père n'en figure pas D'accord. Son père fut un ministre. Qu'est-ce qu'il a de bon Fumutoy. mu toj parce que les Portugais de Dakar qui le suivent. Nous, on est fils de Sénégalais. Eux, fils de Sénégalais. D'ancêtres encore Sénégalais. moom nañu wax ñaari maamam fu ñu jógee. mais c'est un Sénégalais moom aussi. ah tu crois. ah ci lim ñu wax. c'est un Cap-Verdien. Si tu vois l'impolitesse que ce Khadjou Balcon fait là, c'est parce qu'il s'en fout de ce pays. Il a un autre pays abri qui lui sert d'abri. Il s'en fout de, de, de, de, mettre ce pays en, en, sang et en feu. Il s'en fout. Il n'est pas sénégalais à 100% bon. Il n'est pas sénégalais de premier degré, comme moi, comme toi. Au moins moi, ce sont mes grands-parents qui ont ñoom ñoo samp kaneel au moins man mun naa ne Kanel samay maam ñoo ko samp ñoom seen maam sampul sax kër Dakar il n'ont que 150 mètres carrés à Baobab point kenn topp ko ku dul ñi muy may ceeb tuuti kilo ceeb. Il n'est pas de taille à se mesurer à Sonko. Il le sait. Il le sait très bien. Sonko est un élu de Dieu. dégg naa léeg-léeg benn video xaju balcon bi naan xaw ma Sonko veut sacrifier xaw ma lan cadavre. sept personnes sept cadavres. n'importe quoi moom moo xam sacrifice. Sonko est un musulman. musulman xamul sacrifice lu dul mouton de tabaski. et les épouses de Sonko je vous rappelle. lorsqu'il était en prison. ont témoigné que Sonko ne peut même pas égorger son mouton de Tabaski. Sonko dafa am islam Sonko am iman Sonko am ihsan Sonko am sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Sonko am alquran c'est le seul qui fait des discours qui nous relate des hadiths et des versets coraniques c'est de ce Sonko qu'on a besoin c'est de ce politicien qu'on besoin moom lu mu ñuy jàngal lu dul ay saaga et il se contredit en disant que ay lawbe ñoo ko ñoo ko yar moo tax du saaga du tontu saaga il a oublié qu'il a insulté publiquement les de Tambacounda xanaa boobu du law bi yaruñ ko xaw ma labbe yi. parce que dañ ko attaqué sonal ko. ah bon mu génn en tant que autorité mais bu ñu lay bu dee da nga am yar bu baax bu ñu la attaqué foofu nga war a wane sa sang-froid d'où la nécessité d'une bon éducation ceinture noire boo ko tooñee du du du fippu da lay seetaan di la xool. pourtant Ousmane Sonko avait incité. ces militants ne leen Barth dootul defati campagne fii parce que lii ak lii. dëgguma est-ce que du benn Ousmane Sonko taxaw na Rufisque ne comme attaqué nañ samay ñooñ Barth li muy jaas waratul def campagne. lan moo tabax islam lan moo tabax islam. l'islam xeex moo ko tax a tax. voilà direct est-ce que nañ tooñ. voilà. dañ koy tooñ rek mu. lu lislaam wax ci ku rey nit. dañ ku jam paaka. ñu jam la ni ñu jam ba niveau boobu. la vengeance même Dieu est muntaqimu. Dieu lui-même il est vengeur il se venge c'est un muntaqimu. Dieu lui-même il est mumit c'est un tueur. Dieu lui-même il est muhliku kuy alak. Dieu lui-même il est muzillu kuy toroxalaat. parce xam nga baax astafurlah bëgguma sax tudd tur boobu xaju balcon dafa xamul ne bu sacrifice naree am ya a des de des parasites comme moi qui peuvent détruire ci benn miim rek ñeenti tuur yi ma la wax mu miitu mun muzillu muntakimu ñeenti miim yi rek mun nañ ci dugal tuuram def ko lu ñu neex mais un musulman n'a pas ce temps ñun xamuñu loolu xamuñu lu bon musulman xamul lu bon musulman xamul lu bon on n'est pas des féticheurs képp kuy fétiche sax génn nga lislaam ñoom xamuñu loolu ñoom xamuñ ne ce qu'on appelle féticheur là c'est pas des islamistes képp kuy fétiche marabout et féticheur bokkut marabout c'est quelqu'un qui nous fait rappeler Dieu qui nous amène à connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi notation boobu ñuy joxe marabout ak marabout actuel bokkut dëggoo ma lay naan man marabouti maraboutage laa doo def ma xëy benn jour ma sandiko ma xam ne ay fen la nit di la fay million nga koy ñaanal pour lan on dirait que tu fay ma ma ñaanal la on dirait man je suis sûr que ñaan bi dina nangu alors que je suis qu'un simple serviteur ah ñun xamuñu lu bon son Sonko musallami xamul sacrifice moom moo xam lu bon moo xam franc-maçonnerie moo xam Rose Croix parce que au moins moom du ne ashhadu laa ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah mënul génne benn verset mënul réciter benn verset du Coran et nous en tant que musulmans on sait képp koo xam ne alquran xajul sa bopp mbaam nga. loolay dëgg alquran du xaj ci bopp xaj. ulaika kalan aami bal humu adal ulaika humul ghafiluun ils ne sont ni moins ni plus que des troupeaux. waay. a des gens aussi yoo xam ne ñu ngi porté alxuraan seen bopp. dëgguma ma ne am na ñoo xam ne ñu ngi al ak alxuraan ci seen bopp. mais yàlla tam wax na ak ñoom. loolu aussi am na ci alxuraan. ba léegi ñooñu tamit ci ulaayika kalan ami bal humu odol la ñu bokk. loolu sax pas plus loin que sabba boobu ñuy jàng juma. dangay ngay dëgg yàlla fu muy naan ils ne sont que des gens porte portent des livres. waaw waaw nag c'est musulman pratiquant. man bi ma nekkee musulman pratiquant laa bàyyi maraboutage y a des jullikat fii au Sénégal mais jullit yombu fi loolu kay yàgg naa ko wax. jullit quatre vingt pour cent ñii di julli ñëpp duñu ay jullit. Ah. ay jullikat lañu. Ah. parce que jullit du fen. Ah. jullit du saaga. Mm-hmm. jullit du wax lu ñaaw jullit du jow. Mm-hmm. wax ma fii kan moo dul jow kan moo dul fen. jullit du lekk lu lewut. te ñii ma ñëwaat encore ci maraboutage ñii di naan ay sëriñ lañu dañuy lekk xaalisu seet xaalis seet aram te boo lekkee gërëm bulewul walla nga nga sol ci yére boo julee yàlla du nangu. je par là Sonko c'est un donc moom du billaahi mun naa waat que Sonko c'est un saint. man Sonko moo ma gën a set ci yàlla man xam naa loolu parce que dans le pays de Dieu. ku fa nekk ku àgg ci pays bi xam nga ko. donc yow gis nga ko foofu. non Sonko si man dinaa bëgg Sonko ngir lan Sonko qu'est-ce qu'il peut m'apporter. Sonko mënumaa may fonction bu may jël. ñu bari dañ ne bëgg gi Sonko on lui paye 4 millions 500 loolu la wax. xaw ma 4 millions 300. man je gagne 4 par jour minimum. wala plus bon astafurlah parfois je gagne 3 millions parfois 4 millions 500 parfois 5 millions par jour donc lu mu ñu koy fayee par weer. man je le gagne par jour je le fais je le fois lan la ma mën a apporter ban fonction la ma a jox boo boo xam man boo xam ne dina jaral man ma yeewu 6 heures de matin xool ban costume lay sol en plus j'ai un patron jamais de la vie je pas né pour avoir un patron man je suis pour di xool bulletin de salaire jamais maa ngi ñaan yàlla bu loolu naree am yàlla maa faatu sama wërsëg bu basé ci bulletin de salaire. yàlla naa dellu alaxira du ma kooku su ma naree liggéey sous les ordres de quelqu'un wala may liggéey di gis naaj yàlla naa faatu bés boobu. d'accord dégg nga wala ma. dégg naa la man damay toog lépp di ma fekk si noonu la ma ko yàlla mayee ku xamul sa bopp doo xam yàlla man dama xam sama bopp xaju balkoo nag xamul boppam. xamul ne y a que des plus violents plus insolents plus bandi plus réew que lui dans ce pays là fii lu fi waay jënd ñu jënd lu fi waay jaay ñu jënd. yow xaju balcon daa mën a yëngal nit ñi may dégg muy naan daa bëgg xëpp ci suñu yelwaan suuf ban yelwaan nga yelwaan yow amoo nit amoo dara. ah au contraire moom ma bëgg xëpp suuf ci yelwaanu. <laughs> Sonko mais merloo na Sonko ba Sonko wax. kan moo provoqué yéen mës ngeen gis waa Pastef di provoqué ñaata yoon lañ leen provoqué fii ci caravane yi gis nga ñu riposté Sonko bi muy wax parce que trop c'était trop gis nga kédu gu ñu attaqué la. armée waxu ci dara justice waxu ci dara mu tëni xam nga ne waa Pastef xajuñ ci ñoom ñu attaqué waat ñu noppi attaqué waat encore mais heureusement yow laa njëkk gis statut nga ne saa waay tey juum nga waroon waxee nii ma ne la lu mu wax je suis pas au courant c'était à 16 heures te pourtant wax ji am na depuis minuit man je dormais parce que mes jours de repos je dors jusqu'à 16 heures 17 heures man am naa ñetti fan yoo xam ne semaine bi ba 17 heures laay nelaw koo ko fi am te kenn sañu ma fëgg sama jabar sax ñu maa yee buy jóg ci lal bi sax nànk lay def mu ngi ñu toog sañul sax yëngatu dégg nga wala déggoo ma bu baax a baax yaa ma ko yëgal ma ne ma ne là il a en tant que le candidat il n'a pas parlé en tant que premier ministre mësa gis mu sol casquette bi mu nekkee ci gouvernement ba léegi ah, là il s'est mis en casquette en chemise roulée parce que là c'est le candidat Sonko qui est là le président de PASTEF celui que tous les jeunes sénégalais aiment ma waxaat baamtuwaat li ma doon wax ku bëggul Sonko amoo walla ci yàlla maa tey j'assume am na benn waaye sama benn vidéo bi may naan Sonko bu ma demee ajana fekkuma ko foofu sax baal naa yàlla ajanam mu ne déglu leen doomaraam bi ey eh waay yaa yéex xam ne doomaraam laa maa gën a doomaraame ku doomaraame te moo wax la ko man maay doomaraam bi bokk j'assume ngir Sonko doomaraam la bu mot doomaraam la maa tey xam naa xamuñu sa waaye léegi après kooku xamul ne maa gën a vulgaire te bu ñuy jàkkaarloo sañul wax déjà deful tuuram ci YouTube bi na def tuuram dinaa ko lokkati ba gis ko ma sawloo yaayam taxawaay barke Seydina Mohamed booy réew da ngay am dalil am xam-xam am lii yor ay malaaka kay jinne yu lay protéger man ragaluma mbindeef ci kaw suuf soxluma garde corps soxluma ay dara nañ ñëw je suis en direct inna alladina qaalu rabbuna allahumma istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaika alla taxaafu wala tahzanu wa abshiru ceux qui disent que Dieu est notre Seigneur et font de bonnes œuvres là où ils sont ils sont avec des anges n'ayez ni peur ni crainte effectivement xaju balcon munoo reew naankatu sangara munul reew. mais moom diine may na ko mu naan sangara loolu. diine benn diine mayul naan sangara. je suis désolé. mane ma ne christianisme mayewul naan sangara. Jésus c'est un saint. il n'utilise personne c'est un esprit saint à sorti de ses esprits c'est pas vrai. d'accord kon ñenn ñi ñu ngi accuser Jésus di ko waxal Jésus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 Jésus fils de Marie bi ne woon allahuma ya rabbana anzil alayna maidatan min alsamai takun lana iidan li awalina wa axirina wa ayatan minka warzuqna wa anta xayru raziqin ce ce qu'on appelle y a une histoire spéciale qu'on appelle la table servie gis nga ñii di gisee musulmans yi mais ils sont pas civilisés mais ñun ñoo moom fourchette moom cuillère moom couteau moom salle à manger c'est dans le Coran xanaa kay dafa fekk ay pays yu ndóor rek 2000 francs la ñuy dépensé jënde yabooy xam nga togg benn kilo ñëpp bokk ko boo jëlee kii ñaan tubaab tubal waaye tubaab tubaab moomul cuillère julli da ko moom. d'accord. am verset spécial pour Marie. Et nu musulmans, on reconnaît que Marie, la Vierge Marie, et la meilleure des femmes de tout la planète, même Sorna Khadija. Même Aïcha, Marie Mokogan. la ko wax mm-hmm. ah waaw donc musulman être musulman le Coran englobe tous les livres de Dieu Tawret l'Injil Zabour c'est-à-dire et la Bible et l'évangile et les psaumes de David lépp ñu mu ngi ci biir alquran le Coran accepte tous les livres de Dieu le Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi accepte tous les envoyés de Dieu mm-hmm. maintenant si un autre rejette le Coran ou un autre rejette le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo mais diine yàlla bi kay bu mot la yawma akmaltu lakum diinakum d'accord inna diina inda allahi l'islam la seule religion valable c'est Dieu c'est l'islam ku mu neex loolu la ku mu naqar loolu la alxuraan moo ko wax point loolu laa gëm. donc vous considérez que ni Barthélemy Diaz mënul dara ci Ousmane Sonko mënu koo yëngal. yow yow excusez-moi du terme crachat Sonko daa ci moom. moo tax ñu naan ko. Ousmane Sonko koo xamante ne day joxoñ rek ñu fal la. yàggatul on est on sera bientôt à dimanche ils ont ils vont avoir honte dinañ xam ne duñu dara ci réew mi tekkiwuñu dara te mënuñu wax bi ñu bañ Sonko Sonko mooy koo xamante ne foo toog wax ci moom lu ñaaw ñu gën kaa bëgg. déggoo de. te ku bëgg Sonko yàlla bëgg la yàlla ne qul in kuntum tuhibbuna allah fattabiuni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum josee naa ma may leen naan képp ku la bëgg rek bëgg na ma man te baal naa la ay ay ba ay bakkaaram Sonko ku ko bëgg yàlla bëgg na la te yàlla baal na say bakkaar maa tey wax loolu. ku bëgg yàlla baal ko say bakkaar. waaw maa tey. ah docteur loolu. maa tey. niveau bi xaw na yàlla la. mais kaw nitu yàlla la yàlla moo ko bëgg. yàlla jox ko walla ci pouvoiram. du yàlla mooy fale te Sonko mooy fale. jox ko muy fale. <laughs> Ah. ah yàlla de day. fa lawlaa ahbabtu su ma bëggee sama nit sama jaam bi dama koy nekkaat. Mhm. fi may waxee kay ku xamul yàlla moo moo dul comprendre ku nekk ci maqaama sharia nag waxu ak yow doo comprendre ku nekk ci maqaama tariqa aussi di wut yàlla di wut yàlla aw ga doo ko xam ku def fanaaw fii lay nag xam yàlla kooku lay waxal. ki nekk ci xaqiiqa voilà comprendre niveau xam nga dafa am étude élémentaire secondaire universitaire man ci universitaire yi wax la. ñoo fi ëpp ci wàllu diine docteur moo tax souvent booy wax. moo tax nag nga nga besee nga besee xadar bi gis nga Ahmed Khalifa Niass lu bëri lu muy wax si xaqiiqa la du waxu public. moo tax mu mu diis ci nopp nit ñi. mais tôt ou tard un an après di nga xam li mu wax dëgg la. Hmm. mais dafay diis. Ah, diis fi koy waxee. ñi koy waxal. waaw duñ ko attan. képp nag ko fi gisul yàlla billaahi boo demee alaaxira doo fa gis yàlla. fii ci alxuraan laa la wax ni pourtant am na fu yàlla ne kenn mënu ko gis. waaw. Ah. Hmm? am na fu muy naan képp ku fa jógee gumba bu ñëwee fi gumba lay doon. Hmm? ban gumba lay wax du gumba bii di yalwaan kay gumba bu dul gis yàlla la eh, man kaana fi haadihi ama fa huwa fi l axirati ama wa adallu sabila te doo fa gisaat sa yoon kon yoon dem ci yàlla am na di dañoo comprendre loolu xam ne di ngeen xam vous n'avez rien compris Sonko xamaguñ ko Sonko léegi la am ci dëkk bi Sonko léegi la ko nit ñi gën a bëgg man je quitterai ici incha allah aller jusqu'à Kanel taal sama escorte de voiture rien que pour sànni sama carte. sànni ko Ousmane Sonko. et laisser mes jours de travail. waaw dimanche damay liggéey. ah dimanche mais dama koy ba. samedi su ma wàccee taal sama escorte ak rek samay garde corps dem woti ci. loolu moom seen teraanga laa war a topp. benn carte rek lay xob xob bi lay sànni ji de. cinq cent et quelques kilomètres lay def. aller retour lay def maa tey. ba waaw. pour Ousmane Sonko. kese. ak Cheikh Bara Ndiaye aussi mu ngi ci liste bi sama doomu ndey. leen di may ndam rek laa bëgg. xam nga docteur bu demee ba ni même bu Ousmane digli woon koor ma woor te docteur du woor man man bu ma nee sax ma nee la génne lislaam tey ma génne lislaam sama wasila la. moom sama wasila la. fu ma nee nii damaa def pause yépp ci tarixa yëpp ba mu nee ma tarixa bii laa nekk ma nekk ci boobu. docteur waaw maa tey. fi mu xaw ma de. maa tey. ku mu naqari nga toog ci gaz awma droit bëgg comme bëgg. am nga ci droit am nga droit bëgg nu la neexee. jeex na la neexee. jeex na mais quelqu'un nee naa la alaaxira sax su ma demee àjjana fekk ma ma Sonko nañ ma génnee àjjana dañ ma yóbbu fu mu nekk xanaa wax ji jeex na. donc ça veut dire gis nga li ñuy def ni ay milliards di ko génnee di yóbbu ci ci ndox mi bu inondation amee. Sonko day sono boppam soxlul milliard. na ne booy yi rek nañu wax ñun nañ dem naan ndox mi ñu naan ko léegi léegi mu jeex wax ji jeex inondation nañu woo rek léegi léegi ñu manque ndox mi dañ koy naan mu fin. kon ça veut dire am nañu chance bu rëy bu kenn amul. te chance bi une fois lay am par par siècle dof dof lu leen ba ngeen ñàkk Sonko tappalekat yi sàcc yi. ñi tekkiwul dara lu dul mbéb mbéb mbéb rek di lekk l'argent di lekk l'argent du contribuable tekkiwuñu dara lu dul xaalis politique leen dundee nit war na bakkoo man xaalis politik politique lañ ma ngéntee yaa ñàkk jom l'argent di contribuable politique politique cim loolu nit kooku war na bakku ñu bari na doo uti tool nga bay ñu bari dañuy wax naan Barth amul liggéey kër baayam la nekk ba léegi loolu tamit. loolu c'est pas mon problème kooku du ma tudd turam xaju balcon laa xam ki ngay wax xaw ma ko. gars yi ñu ngi man daal xaju balcon laa xam. <laughs> mais tamit Barthélémy Dias la tudd. wax ko xaw ma ndax loolu la tudd man daal Bart man daal xaju balcon laa xam point. koo xamante ne is se croit quelque chose is se croit quelqu'un fekk du dara. on t'aime pas munoo fexe bi ñu bëgg la. tojoo fenn on t'aime pas et on t'aimera jamais munoo wax bi nga saf ñu. war rek nga fi nekkee ana ñu mu nekk loo ñëpp. Où est Khalifa Sall qu'elle disait Dieu Khalifa Sall, je vais dire une chose aujourd'hui en direct. benn fidèle nga am benn fidèle soo am Wardini la mun naa ko seede te yàlla tax soo am Wardini jëlee naa ko fii 23h yóbbu ko ba Touba. je vais te ah ah. sëñ Mourtala bu sëñ Fallu war ñu recevoir. Mm-hmm. ma bëggoon ñu ubbil ko raw da sëriñ Fallu mu ñaan soxlam xam lan la ñaan. <laughs> na xalifa jiite réew mi. mais bi mu amee décision boobu ma xam ne ubbi luñ ko rawale bi sëñ Mourtala yem këram maak moom ñoo ànd fekk tëj nañu mosquée bi ci buntu mosquée bi la taxaw fekk dañoo tëj grilles yi. Mhm. ma xam ne Khalifa Sall du nekk président. parce que bu amoon chance boobu dinañ ko ubbi rawde comme man nañ may ubbilee rawde sëñ Fallu guddi. may ñaan sama soxla. moom elle n'a pas eu cette chance foo rek laa xam ne Khalifa du nekk président. ñu ngi ñëwaat fi 4 heures du matin bi ñuy ñëwaat xam nga ne ñaata laa doon daw. 160 kilomètres à l'heure voire 180. ci Ford Escape. titanium bu bees. le lendemain xam nga lan la ma bind message merci pour le cent soixante kilomètres à dafa tiit lu mu xamoon jàng na ko. <laughs> kooku voilà une fidèle de Khalifa Sall firnde sax bi ñuy dugg Touba Khalifa woo ko mooy après la prison de Khalifa kooku moo bëgg Khalifa soxlul dara loolu dul na Khalifa falu voilà une fidèle de Khalifa kooku seddal naa ko. d'accord mais Bougane nag. non on parle pas de celui damay jóg plateau bi de. d'ailleurs même je quitte. rien qu'en me prononçant ce vaurien là ce mégot de cigarette là je quitte le plateau. asalaamaaleykum wa rahmatulah. mais yow tamit nag docteur Bougane tax nga quitter plateau bi. donc mu ngi noonu docteur quitte na parce que. Euh, bugaan mi ñu ko tuddal moo tax mu quitté mais ñu ngi leen di euh, gërëm bu baax baax ci ànd bi ngeen àndoon ak euh, ñun ci entretien du jour bi di leen jégalu bu baax a baax baax itam jox leen dig daje ci beneen jotaay Ndeye Fatou Seck moo ñu nekk loon ci xarala bi.